na la wóor ni que ay Sénégalais yow lay remplacer ngeen may ma tamit ma insister waat ci le cas de Bougane Gueye Dany parce que je pensais même qu'il y avait 13 ans laa nekkoon Tambacounda maa ngi woon Tambacounda en 2005 j'ai fait quasiment toutes les prisons de ce pays xam naa camp pénal xam naa Rebeuss te min naa Tamba su ma waxee tey que jël nañu Bougane Gueye Dany tëj ko ci benn cellule avec plus de 40 personnes j'interpelle directement le directeur de l'administration pénitentiaire yow lay waxal waxuma keneen loolu xam nga ni du dëkk xam nga ni du yoon te xam nga ni que jaaduwul naam nangu naa administration pénitentiaire seen moyen dañu limité wante dama ne la prison de Tambacounda n'est pas une prison c'est un enclos pour chevaux man dama fay nekk sax amoon na évasion parce que malheureusement c'était l'état de la prison prison jooju soo fa duggee xam ngeen dakaar am ngeen Fort mooy pour les enfants mooy xale yi mineurs yi am ngeen camp mooy pour jigéen yi am ngeen rëbës pour góor yi am ngeen tamit camp pénal pour les condamnés définitifs les condamnés pour les longues man may bañ may dugal 2005 ci kaso bi ci Tambacounda dañ ma jëlee fii camp pénal génn ma fii 4 heures du matin gars yi jël ma encagoulé dugal ma ci oto xaw fu ma jëm gars yi ma Tambacounda. ma egg Tamba il fallait il faisait peut ay dix heures du matin ba ma ñëwee nag wax dëgg yàlla régisseur bu fa nekkoon dalal ma administration pénitentiaire gàcce ma ñu jël suma ay bagages ma topp leen ñu dugal ma ci benn cellule man kese pour des raisons de sécurité munoo jël ay leaders politiques d'un certain niveau leen di dugal dans des dans dans dans des fu ñuy wooyee cellules yooyu dans le jargon mooy paquetage te waa Rebeuss ak may dégg waa camp nag may dégg te xam naa lan mooy paquetage parce que dama ci teg suma bët kon nag nous appelons l'administration pénitentiaire à assumer ses responsabilités man dañu may dugal ci kaso bi dañuy jël secteur u mineurs yi ñu génnee mineurs yi yëpp libéré leen parce que benn kaso rek am Tamba ñu bàyyi jigéen ñi seen secteur kaso gi tout le temps où je suis resté à Tambacounda il n'y a aucun prisonnier dans la prison de Tambacounda bu ma teg bët amuloon tout le temps où j'ai été incarcéré à Tambacounda suma benn détenu pour des raisons de sécurité su ma doon génn pour dem watu ji wala dem jëli suma añ même ñu nekkoon dans la population carcérale générale dañ leen doon bloqué kenn musuma teg bët musuma teg bët kenn pour des raisons de sécurité tous les hommes politiques qui sont passés ici ont été isolés man nag comme dama xawoon miin tuuti man comme dama xawoon miin tuuti ah je m'excuse il y a apparemment une coupure de courant je vais continuer tout de même je vais continuer le, le point de euh, de presse j'espère que yéen a ngi dégg ci micro yi. wante lu fi xew nii lu fi xew nii daal c'est à l'image du pays mooy délestage yi te xam ngeen fu may waxee waaw ku mënul te tële nii rek le mbir bi mën a demee mooy des coupures de courant à tout bout de champ te ñu ngi commencé di ko bëgg a kon nag euh, mbokk yi dama ne lu ñu bëgg a teg Bougane Gueye Dany dañ koy ñaawlu di ci interpeller l'administration pénitentiaire wante tamit di ci interpeller tous les acteurs des droits de l'homme Bougane Gueye Dany n'est pas n'importe qui dans ce pays mu neex leen loolu la yàlla dogal mu naqari leen loolu la yàlla dogal kilifa la am nag Sénégal ay sénégalais yu am yaakaar ci moom dama ne du benn acteur politique fii Sénégal en commençant par Mimi bii kenn mësu leen paqueté kon nag bëgg a jóg tey ne da ngay jël Bougane Gueye Dany di ko paqueté duñ ko nangu te duñ ko setaan maintenant nag balaa ñuy nekk di monter l'information à notre niveau wax dëgg yàlla na ngeen teg Bougane Gueye Dany dans des conditions décentes wala ñoom ñu may dégg wala vous transférez Bougane Gueye Dany à Dakar parce que Dakar il y effectivement des prisons qui peuvent accueillir Bougane Gueye Dany et la cellule des VIP à Rebeuss est encore réservée parce que pour l'instant il y a personne là kon nag paquetage boobu dañ koy ñaawlu parce que ku min kaso dama ne ku min kaso dina xam lan mooy tuberculose parce que doo ko dé doo doo toog rek di ko gis da nga koy dégg ak yeneen xeetu feebar yu nit mën a jële ci kaso gi na ngeen nekk nit parce que yéen bañ leen di téye ci seen tappale yooyu on a respecté votre dignité humaine dama ne bañ leen doon téye ci seen tappale yi l'administration pénitentiaire a respecté vos droits donc on vous demande d'en faire de même et on invite aussi les droits de l'homme à se lever à se dresser et à et à dénoncer cette forme de torture psychologique mbokk yi comme nu ngeen ko xamee démb dañu dem Tambacounda ne dañ fay dem jàppale suñu naataango di président Bougane Gueye Dany man ba ma fay egg Tamba président Bougane Gueye Dany euh, mi yoon Bakel parce qu'apparemment il y avait des problèmes sur le PV ma dem jëri benn néeg ci benn hôtel foofu pour mën a dalu ba may génn sax ma daje ak avocat président bu Bougane Gueye Dany di maître El Hadj Diouf ma kay gërëm di ko sant au passage pour teewaayam ak euh, sa constitution di tamit gërëm di sant tamit maître Ba de Tambacounda. bañ ma ne président Bougane Gan euh, président Bougane euh, président Bougane Gueye Dany il est à 30 kilomètres de Tamba ma ne on quitte et on part le rencontrer ñu ñëw. daanaka mu amoon benn comité d'accueil bu ndaw man ma wàcc saafonte ak ñoom dem dugg ci tribunal bi waaw ma bëgg a xam depuis kañ la ñu tere citoyen sénégalais muy dugg tribunal ma dugg tribunal toog ñëpp ak may gis te vidéo yi ñu ngi fi policier jóge fële ñëw ak ñaari GMI ne ma monsieur le maire ma ne ko naam mu ne ma j'ai des instructions da nga nar a génn fi ma ne ko instruction yi fan la bàyyeeku mu ne ma j'ai reçu des instructions ngay génn fii ma laaj ko moom mooy kan te na identifier boppam parce que nit ki nag moo doon commissaire de police wala d'un certain niveau dans la di ñëw di joxe ay instructions wala di relayer ay instructions yu nga xam ne ni wax dëgg yàlla loolu nopp mënu ko dégg te xel mënu ko nangu mu ne ma je suis adjudant chef fàtte naa turam ma xoolaat ko ndeysaan ma gis quasiment mon fils aîné qui a 24 ans ma xam ne ni que kii su su amee 25 ans ci la yem ma xool ko mu ne ma il est adjudant chef ma ne bon wax dëgg yàlla du ma fi indi ay problème ba ëllëg benn adjudant chef di ci am problème ma ne ko nag moo tax dinaa la wax ñaari baat tribunal bi mooy comme suba su ngeen ma bëggoon dàq daanaka ma jóg ne damay dem service des mines pour dem wuti ay këyit ngeen dàq ma service des mines wala ma dem poste pour jël fa benn colis wala bëgg a benn colis dans un service public d'utilité publique yéen yéen yéen ngeen taxaw yéen ngeen taxaw nekk loolu mënul nekk depuis quand est-ce qu'un citoyen amul droit toog ci benn tribunal pour xaar fa benn mbokkam wala wut fa këyit wala poste fa plainte depuis quand est-ce que benn citoyen sénégalais amul droit dem service des mines pour wuti benn këyit pour otoom hmm. Depuis quand est-ce qu'un Sénégalais n'a pas le droit d'aller dans un service public d'utilité publique ma ne ko d'accord dinaa génn wante nag ma bëgg la xamal ñaar fitna indiwuma fi te su ma génnee xam naa leen dinañ ma cokkaas te xam naa ñu ma àndal ñu ne ma loolu du fi am man leen d'accord ba ma génnee ñu commencé di cokkaas dinaa leen wax ñaar man damay politique toute la presse nag laay interpellé képp ku ànd ak man lors de la dernière élection présidentielle yéen ñëpp gis ngeen campagne bi nu mu tëddee man su ma nekkee campagne di dem ci ay gare routière di dem ci ay marché di dem ci ay tefes di dugg ci ay gox nit ñi di nekk foofu di saaga di xaste ak di ruube loolu wax dëgg yàlla ci la bokk est-ce xam ngeen fu may waxe ci la bokk daanaka campagne bi du ngeen ma gis ma romb fenn nit di ruube ma koy xeelu wala di ko ciiputu wala di ko saaga di ko xas mukk yaa parce que loolu mooy démocratie élection présidentielle bi ànd naa ak suñu candidat fépp fu ñu dem xale yi di ruube te fépp fu ma jaar ku ruube ma tàccu la soo bëggee sax ma ànd ak yow ñu def benn selfi campagne bi amul benn coalition service de renseignement yëpp a ngi may dégg police a may dégg gendarmerie a may dégg te may interpeller directement les gens de Pastef de Dakar waa Pastef Dakar fépp fu ma leen romb taxaw naa jox leen seen wàccuwaay te jox leen seen gëdd am na ay bërëb jaar naa fa tàllal suma loxo mu am ñu leen xam ne dañu tey seen loxo ne duñ ma nuyu wante am na ñeneen ma tàllal leen suma loxo ñu nuyu ma am na ay mbokk yu nekk ci Pastef ci élection présidentielle ma jaar romb leen ñu def ay selfie ak man parce que loolu mooy Sénégal bi bépp coalition bu ma dajal ci élection yi nuyu naa la tàccu naa la ñaanal naa la te encouragé naa la parce que loolu mooy politique la politique c'est d'abord l'élégance te la politique c'est pas fait pour n'importe qui c'est pas fait pour des vanne-pieds la politique c'est fait pour des gentlemen et des gentlewomen wante nag ma génnee xale yi commencé di ruubee man leen ruube bi du fi dal parce que nag euh, pesum kanam borom a ma koy fajal boppam ma bëgg nag wax ci leer ci wax ci nag à ce ngeen may ma nag mu ubbi benn parenthèse soog ko tëj yàlla moo dogal ma doon tey kilifa doon le maire de Dakar am na ay kàddu yu narul génn suma gémmiñ moo tax ma bëgg a jéggalu askanu Sénégal parce suma cër coow li bu muy am xala xalaatuma woon que les micros étaient ouverts mais comme man booy Dakar laa xam ngeen nag am na lu mënul ñàkk wante maa ngi jéggalu askanu Sénégal parce que amaana y a parent seen doom yi dégg nañu wax jooju te loolu il faut ma jéggalu leen parce que du suma cër ensuite am na ay kilifa diine ak ay ak ay kilifa aada yu dégg baat yooyu te du suma cër moo tax may jëgalu askanu senegal ci baat jooju ma tëj nag palante euh, parenthèse boobu wante waa Tambacounda ñu nga xam ñu ngeen xam ne ni ñoom démb ñoom ñoo jóg instrumentaliser